ñu indi leen ñaari mbër wax ci ñoom affiché seen palmarès tey nag ki leen andil mooy Bébé Diène à côté droite Ada sama côté gauche ñu indi leen seen palmarès gis nga leen noonu macha allah seen affiche photo bu rafet Bébé Diène gis nga ko noonu gis nga Ada noonu ñu war a waxtaan tey ci ñoom waaye mbokk nag tey mbégte la ñuy nuyu waa réew yëpp ak waa bitim réew di leen baal àq ci màggal gi nga xam ne 18 safar bi ci la nekk. di leen balu ak bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay waaye xalil ko ci mel ni tamit Abdou seen woo na ma ne ma macha allah yow ak Lamine Seck parce que wax sa mbaax waaye du wàññi sa mbaax dara yéen a jeexal sama connexion bi kooku jarbaatu jëy seen la maa ngi koy siyaare bu baax mu nekk nit ku baax dama sama connexion bi moom yéen a koy jeexal parce que damay guddi gu jot Modou dama lay nga xam ko nga ñàkk koo xam loolu dafa fort maanaam moom nag dañoo yàgg depuis temps yi ma nekkee rajo ba ba tey maa ngi koy siyaare bu baax a baax ku ci mel ne nag bàyyi ji li Kolobaan Sañse maa ngi koy siyaare bu baax a baax a baax bàyyi ji li ñoom Ibrahima Kanté Mbay Toldo Sëñ Baara Brésil bëgg nañ leen bu baax a baax grand Laye Ndiaye ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax waaye am na ci benn champion boo xam ne ñu naa koy sëtu falang sëtu falang maa ngi koy bëgg bu baax di ko jox wàccuwaayam moom des fois daf may message naa may Modou jàpp ci maa ngi koy siyaare yow doomu mbër nga rakku nga jarbaatu mbër nga sëtu falang moom Abdourahmane Ndiaye falang ñëpp ko xam ñu ngi lay bëgg bu baax a baax di nuyu fi nga féete yëpp ku ci mel ni tamit ah parce que nuyoo bi faaw mu bëri am na benn euh, policier bu may réclamer Elas Ndiaye caatu Aïda champion ñi ngi lay siyaare bu baax a baax te yow tamit di la jox sa wàccuwaay di nuyu nit ñi fu waaye nekk ci réew mi ak ci bitim réew Babacar borom marché Petersen Aliou borom Ramdan Couture Abdou taal bu xarañ boobu béggee nañ leen bu baax a baax a baax yéen ñëpp rek mbokk yi ay dañuy ñëw andi leen palmarès bi palmarès bi mooy si diggante Bébé Diène ak Ada Fass du ñàkk ñu wax ci ñoom seen ay jaar-jaar ba pare ñëw ci ñoom xuus ci bu baax a baax a baax wax ak yi kan mooy Bébé kan mooy Ada Fass xale bi ñuy njëkkee mooy Bébé Diène ndaanaan la ci làmb macha allah nekk champion xale la boo xamante bi ni tamit wax dëgg yàlla mi ngi bay waaram di góorlu bu baax depuis nga xam ne dugg na ci làmb ba tey macha allah mu nekk champion boo xamante bi nii mi ngi ci dix combats moom Bébé ci biir dix combats yi am na ci deux défaites. ñu bëri xamuñu Bébé Diène fu mu jaar kon nag tey Modou Anta sans frontière dina jàkkaarloo yéen ne leen kii la bëreel kee la bëreel première combat ba dernier combat parce que tamit loolu ci bopp bi lay nekk. des fois yàlla suñu borom moo koy jagleel nit ki du nit kuy bàkkoo parce que loo xam tey ñi may seetaan sax ñoo ma gën a xam làmb foofu des fois sax damay juum ñu jubbanti ma ci commentaire yi. waaye xaleel gis nga lii ma sol tey ki ko waxoon moo ko def. Galaay Galaay bu TDR borom caara yi. doomu day Param de maa lay siyaare bu baax doomu yaay Kandji production dama def émission chaque jour moo daan def bind naa may taxaw seetlu bi bul ko fàtte ma def taxaw seetlu mu bindal ma commentaire na de dinaa la may ci setu Serigne Saliou bu rafet mu yónni cag-cag mu indil ma ko fii ci police unité 15 bi galaay sant naa la gërëm naa la parce que wax dëgg yàlla lii moom sedd na sama xol trop macha allah mbokk yi Bébé Diène premier combat daf ko ñëw daanu digganteem ak càndum numéro 2 macha allah mu nekk làmb joo xam presse moo ko tëggan mu nekk combat bu neex mu bëre bu fa bëre bu rëy juum ci biir bëre ki ko daan war na ko daan càndum de le grand champion borom géejawaay Bébé Diène am defet ba mu fa jógee gis nga ko première combat nga ko benn combat mu jël njaaxum de daan ko jël sarko de daan ko jël lëës dóor ko mu daanu kon Bébé Diène am na benn kaawo jël lëës dóor ko mu daanu jël la sandeer daan ko avant bi mu dooree lëës mu daanu sax ci diggante bi Tyson géegi neew daan na ko fi mu jël xale bi nga xamante bi ni mooy Lac Sanguère daal di koy daan macha allah nga gis ko aussi tamit mu jël Tyson ngee gi néew daal di koy daan nga gis ko mu jël xale bi nga xamante bi ni tamit ah macha allah wax dëgg yàlla ko wax làmb boole ko ci mu jaa di koy jël daal di koy daan muy Fourrière bi mu daanee fourier nag macha allah booboo nekkoon huitième combat bi mu jógee ci Fourrière gis ngeen ko digganteem ak gàkku numéro 2 mu daan gàkku 2 par avertissement muy neuf combat mu mujj foofu ci digganteem ak Baye Mandione muy 10 komba kon mbokk yi xale bi palmarès bi rafet na 10 combats 8 victoire 2 défaites yaakaar naa ne nag waruma juum waaw ci li ma jàpp li ma seetaan première combat am càndum 2 ba Baye Mandione ba Baye Mandione loolu mooy palmarès am fukki komba juróom-ñetti victoire ak ñaari défaites. ñaari defeti nag ñaari defaru la ko xale yu tuddee mu nekk champion boo xam bala ñoo jeexal ci moom lenn lañ am luñ koy conseil comme ni ñu koy waxee mbër yi nga xamante bi ni ñoo nekk ci làmb ji yëpp parce que des fois ñun dinañ nu comprendre parce que des fois dinañ wax ci sama xalaat bu gàtt dinañ ko teg ci yar teg ko ci teggin duñ déborder duñ dugg ci vie privée xëy na nag des fois suñu ay interview dina am lu mu changé ci ñoom des fois suñu ay interview dina am lu mu defar ci ñoom des fois suñu ay interview seeni supporters yi dinañ compar comprendre des fois ñeneen ñi nag duñ comprendre mais lu ci mën daal ñu gisee ko noonu mais nag champion la boo xamante bi nii bébé retour bi retour gagnant laa ko tuddee am na lu jàlloon nañ fa nañ wax loolu rek yem foofu noonu retour bi retour gagnant laa ko tuddee parce que retour bi boo ñëwee jël gàkku numéro 2 daal di koy daan jël bàyyi ma jot numéro 1 daal di koy daan. lan moo des lan moo des nag mais nan taxaw ci retour bi ñaari combat noo ko bëree mbokk yu xool leen ñi ma leen limal ñëpp ki ci gën a ës ci ñim bëreel mën naa ne gàkku numéro 2 la ki ci gën a ës ci ñim bëreel gàkku numéro 2 la te bébé bi nga bëree gàkku 2 metti na ci yow metti na ci gàkku 2 daanoo ko wëlbit gàng da nga koo daan par avertissement avertissement boobu victoire la noonu la Balla Gaye daanee Gris Bordeaux noonu la moduloo daanee Lac de yàgg na ci làmb nga jël Baye Mandione bëreeg moom avec la manière daan ko kon nag sa yenn morom yi am na ñu des waaye tamit sa yenn grand frère yi am na ñu la mën a may chance mais lenn laa lay conseil góor góorlu tey ku la xam xàmmee la bi ngay nekk booy bu ndaw seexu pël ñëpp xam nañ ko Medina lañ la xamee nga nekk booy bu ndaw donte nag. comprendre nga fii ñun ñëpp man dëkkuma fi man bawol bawol laa dëkkuma Dakar doon dana yow dëkkoo Dakar Guinée nga mais ñëw nga jaxasoog sénégalais yi macha allah ba kenn xàmmeetul kenn wax dëgg yàlla ngay bay sa waar bu baax a baax Pépé gën a la góorgóorlu gis mbooloo bi topp sa ginnaaw defaloo leen dara jox leen cër delloo leen ko bu baax ñi nga ci mën a dégganteel téléphone del déggante ñoom téléphone ñi nga ci bokkal groupe whatsapp dee leen siyaar am na benn jour nga def lu ma marqué ci korite gi xaw ma ci tabaski bi nga vocal ma ne waaw Modou Anta maa ngi lay nuyu dama ne journaliste yi ma yor seen seen numéro yëpp dinaa leen vocal baalu leen àq parce que amel naa leen àq yooyu dafa baax day am lu muy def ci nit ki parce que ñun ñii kenn mënuñoo jaay lu ñu saf parce que ci làmb lañ nekk te des fois dañuy jëli nit mu yàq mbër wala mu yàq moroomu nawleem ñu dagg bàyyi du jàll am na ñu koy def am na ñu ko dul def duma ma tudd turu kenn mën naa ko def mën naa ko bañ a def te yooyu aussi tamit kon day jot ngeen joxaat ñu cër bi ñu delloo leen ko ba mat sëkk sëkk sëkk sëkk mais am na lu nekk ci sa kanam loo xamante bi nii boo fa jaaree fi nga war a dem si làmb di nga fa dem parce que làmb du caaxaan après làmb mooy làmb après làmb mooy lan làmb ji jeex na diw mbër la woon bëre na ba bàyyi bëre amoo kër. amoo oto amoo xaalis tur kese ngay dese bari na ancien gulwaar yooy gis ñuy ñëw stade yoruñu dara ci làmb te bañ cay toll ñoo la ëppoon mbooloo ëpp la supporter fu ñu génnaa lay doon kon teel a la la yor duñu ay ngaaka Abdou Salaam xam naa ko suma papa maa ngi koy siyaare bu baax a baax tubaab xam naa ko ak sa beneen bureau boobu noonu gaan bu xees bi maa ngi koy siyaare bu baax a baax staff bi dëgër na nan la teel a encadré loo bëgg ci làmb mën nga koo am nga teel a wut kër lii ma lay conseillé nii man bu ma ko mënaan moom laay def parce que bu liggéey bi demee ba dox ci man dinaa teel a wut kër parce que làmb am na après làmb am na ëllëgay tax bul foo ci dara lépp loo am. wutal foo xamante bi nii di nga ko fa teg parce que làmb après làmb moo gën a métti Tyson bëre na bàyyi na bëre instant yi mi ngi si jàmmam yor ay këram macha allah yor ay compte banque am am succès ci réew mi ni bëre na ba bàyyi bëre macha allah gis nga li mu am ci làmb loolu mooy après komba après combat combat la loolu mooy après komba nga gën a góor góorlu xam ne booy yi la topp defaloo leen dara gën leen a delloo cër bi comme ni nga leen ko joxe gën leen koo delloo. te xam ne mbooloo mooy doole supporter moo sonn ci mbër amateur moo sonn ci mbër mbër mee moom félicité bi mbër mee moom xaalis bi mbër mee moom succès bi mbër mee moom bayre yi amateur yi félicitation lañ ci am supporter yi félicitation lañ ci am gën a la góorgóorlu bu baax man nag gis naa ne sa combat ak Dame Sène combat bu neex la man maa gis loolu sa combat ak Dame Sène bu neex la Youssou Ndour Mor Kankang bu see Youssou daan yéen ñaar combat la bu dee Mor daan nag du ngeen mën a bëre ndax ay mbokk bawol bawol ngeen sa combat général Malika tamit combat bu neex la waaye tamit gis naa bu fekkee ne gars yi mën nañ laa may chance Yékini Junior bu bàyyul mën na laa may chance ama neex bu bàyyul mën na laa may chance bari na champion yeneen yoo mën a bëreel góorgóorlu bu baax 10 combats 8 victoire 2 défaites ma jàll ci keneen ki bu ko defee ñu tëj émission bi muy xale bi nga xam ne 2017 la dugg si ci làmb muy Ada Fass sama copain des fois gars yi ne ma da ngaa sonal Ada Fass mais man ak moom dañoo xamante parce que dañoo yàgg yàgg bi nag du ci dara bokkuñu lal bokkuñu fanaan parce que wax day leer mooy que avant muy dugg ci làmb laa ko xam terrain banque ba laa ko découvrir muy daan yi jël yu doy waar yu bokkut ak mboot ma ne leen kii mooy kan ñu ne ma kii mooy Ada Fass ak perkat yi mbappatu roog ma ne leen dinañ ko dégg ci làmb parce que mën naa bëre te li ma gën a neex ci moom bu jàppee dafa ñime action. booba laa ko découvrir ba premier combat am ni mu ñëwee bëreeg Yéri 2 daal di koy daan bëreeg Farou Diar daan ko bëreeg caatu Baye Paate caatu baate Baye Paate daan ko mu bëreeg Dorma daan ko bëreeg Ardo daan ko muy cinq combat mu bëreeg Raoul Kara daan ko jóge fa dem arène national bëreeg caatu ngéwél daan caatu ngéwél bi mu dellusee see premier grand combat am Onde daan ko mu jóge fa bëreeg bébé bis daan bébé bis jóge fa bëreeg Tafa Mbër daan ko muy dix combat bi mu jógee ci tafambar bëre kolifay daan ko muy onze combat mu jóge ci kolifay bëre xale bi nga xam ne mooy Zarko Sato Zarko daal di koy daan muy douze combat bu ma jumul lii laa jàpp ci palmarèsu Ada Fass peut-être nag ma fàtte mais lii laa jàpp te lii laa seetaan muy champion nag di ndaanaan boo xamante bi nii axlu làmb nangul nañ ko conseil bi ma am ci moom rek mooy que mu gën a góorgóorlu te xam ne li gën a jafe mooy nit ñi bëgg la te aada macha allah sa moroomu mbër yi sa nawle mbër yi bëgg nañ la gis nga tamit yow li fi paase woon sa moroomu nawle mbër yëpp a taxaw soutenir la jàppale la ñun tamit ñu taxaw soutenir la jàppale la ba nga génnaat ci jàmm ñu xam ne làmb dañoo solidarité loo xam ne nag ñëpp ko bokk ku ci am jafe-jafe ku nekk nañ la taxaw ñun loolu moo ñu war man loolu jomb ma jombul sama morom jombul keneen ak keneen mais nga gën a góor góor góorgóorlu xam nga lu tax nga gën a góorgóorlu dafa am boo yu nekk ci ginnaaw di ñëw aada coow bi nga amoon bu ko raw la ñu am mbooloo bi nga yor bu ko raw la ñu yor te amateurs yi ñu ngi commencé découvrir leen découvrir leen ñuy ñëw di percer te bari nañ coow lool ku ci mel ni Talfa gis nga ko fan yi gémeer bi coow la bari na lool gis nga leen yéen ñaar bi ngeen dajee arène nationale coow la am na fa te patron ngay bëreel muy sos ku ci mel ni Diop 2 borom soow mi 9 combats 9 victoire coow bari na ci moom lool ku ci mel ni Liss njaago 9 combats moom tamit. sept victoire deux défaites moom tamit coow li bari na ci moom loolu mën naa laa limal bari na ku ci mel ni bu ndaw ku ci mel ni caatu ndaw dafaal bari na ñooñu ñëpp aada ñi ngi ci sa ginnaaw te sorentew leen lu bari am nañ ay bu ñu daanee xaw ma dañuy daan wala dañuy daan parce que wax day leer parce que seeni naawle la ñuy bu ñu daanee dañ lay jege lool yow am nga combat xaw ma nooy def xaw ma da daan xaw ma da ngay mais bàyyil xel ne mbooloo bi nga amoon ci li ko daggee deux mille vingt deux mille vingt et un deux mille ba deux mille vingt trois xale yi am na mbooloo boobu coow li nga yoroon xale yi yor nañ coow boobu noonu te ñu ngi ci sa kaw marqué la nag dara doxul seen diggante dëgg dëgmal la rek fas yéenee bëreeg yow kon aada xamal li nga yor sa combat bi ak Zos Zos parewul sax pour nga daan ko Zos mi ngi entraîné sérieusement mi ngi def li ko war lépp rien que pour këpp yalwaanu aada Fass mën a taxawaat parce que ku daan guy gi daan booy ñaa kum daan daanaat la daan isaapuy kum daan daanaat la de ma wax la ko bu baax a baax nga bàyyi ci xel faw nga entraîné ji bu ma jum maa ngi doon dégg ay rimoor dese na maa leer na parce que information boo koy joxe day leer ñu ne dem dellu nga France dégg naa ko dese na leer na parce que woo naa jotuma la bàyyi ci xel nga entraîné bu baax te xam ne gis nga fàtte naa bébé jéen gis nga ko sa xarit sa doomu ndey sa wóolare nga gis bi ngay def open press mu ñëw def ses bu rafet gis nga ko andi mbooloo bu bëri moo xamante bi nii ñi koy génne Medina bëriwul Siteu de maa ngi koy siyaar bu baax a baax borom garab gi ne dëgër mbokk yaayu caatu kay rek mooy woote maa ngi koy siyaare bu baax a baax a baax gis nga bébé Diène mbooloo ba nga yoroon bu ko raw la yor dab na la ci mbooloo mu ngi jëmaat ci combat yaa ngi jëmaat ci combat ay doomu nday ngeen nag kenn xaju seen diggante yàlla na leen yàlla defal jàmm te supporters yi ñu dawal compréhension xam ne yéen ñaar ay nante ngeen xamante ngeen bu baax a baax mais dama ne la aada faaw nga góorgóorlu aada entraîneel rayal sa bopp jàmbaar nga garmi nga xam naa la bëggoo defet bëggoo defet man ngaa bëri am nga fit luy problème bi doole parce que aada nag état de forme bi ma gis ci yow keroog ba plateau di bëri ah loolu daanu jos de loolu daanul jos de te jos ndax ko bëre de yaa ko gën a ay jël nag pour mu leer xam naa ne du am ñu ànd ak man mais daa kookoo bëre ma wax la ko tey ñu bëri nag yaakaar naa ne boo ko jàppee mu jeex déedéet Zoss bu amee doole am nga problème aada faw nga entraîner rey sa bopp génn ànd ak ñi nga doon àndal macha allah ñu gunge la nga ñëw jëlaat sa place ci làmp parce que làmb daf la yaakaar aada produit wu nga produit bu baax nga macha allah boo xam ne buñ la jaayee da ngay jar. mais aada la ma waxoon laay waxaat làmb man ak yow ñoo ci yem instant yi bu fi yemoon tur la ñuy dese yoraguñ dara aada amoo kër aw ma kër wax ji man ak yow a koy bokk xama lu ma la dara lu ñaaw du la xas sama frère nga aw ma oto amoo oto am nga soxna nag mais man tamit am naa soxna macha allah dama bëgg nga góorgóorlu parce que man xam naa li nekk ci yow depuis ba pat ba arène c'est connu xam naa la bu baax on se connaît man yow kon nag. faaw nga entraîner rey sa bopp ñëwaat ànd ak ña nga doon àndal wàcce wàccewaat sa bopp delluwaat koñ ba àndaat ak gars yi comme ni nga koy defee ñu ji remercier ku ci mel ni ne Abakara Baye faal bi kooku ku la bëgg la ñoom Baye Fall bu aada Fass ñoom Ousmane Pël boo dee lim da ngay juum ñoom sa gars yooyu yëpp macha allah dañ la bëgg parce que nit bala ngaa xam ne kii bëgg na la nga nekk ci jafe-jafe dañuy ñëw taxaw teew kon nag gaynde entraîner nga nekkaat ci xam ne am na po yu nekk ci ginnaaw yow rek lañ bëgg a bëreel fi may jeexale message la pour mbër yëpp ngeen gën a góor góorlu gën a fonk seen bopp gën a entrain xam ne làmb ji kenn moomu ko am na mbër boo xamante bi ni mas na maa vocal ne ma diw laa bëgg a bëreel te moroomam la ma ne ko bul ko laaj mu ne ma lu tax duma ko laaj ma ne ko danga koy raw ci làmb mu ne ma ya moom rawee na ma ñetti combat ma ne ko da koy raw ci làmb yàlla rek ma tiim jërul nga koy laaj parce que benn moo la ëpp ay victoire moo la dàq bëre pour l'instant moo la raw mais yow yaa ko ëpp mbooloo te mbooloo day dimbali mbër ñu teg ci ñaari at mbër boobu rawaat ko ci làmb instant mbër boobu bëri na temps dañ koo daan xoolal loolu parce que làmb dañ koy natt mbooloo baax na trop mbër yi ma leen di conseil seen supporters yi nañ bàyyi sedd bi bu ñëwee stade nañuy mel ni subateer yi boo Jóob yi dinaa ci jël exemple Jóob 2 man leen a supporter mel leen ni supporters yi bébé jéen yi amateurs yi ñu ngi toog jouru làmb ji di xool promoteurs yi ñu ngi toog di xool ménager yi ñu ngi toog di xool buñ présenté acca ñi ànd ak Diop 2 ñëppay jóg acca ñi ànd ak bébé Diène ngeen commencé bu ngeen ñëwee 18 heures wala 19 heures commencé di yëngal di lekk di naan di yëngal ba keroog làmb ji jeex noonu ngay jàppale mbër mais da ngay gis mbër bu ne la jaay na 4 bolok wala jaay na 5 bolok supporteram yi toog di loxol man sama turandoo deux derniers combats yëpp maa ngi koy nuyu dépassage 4 bolok la jaay 19 heures balaa 19 heures versé na promoteur bi 800000 mais booy des fois dañuy bëgg nit ki ba pour ñoom tey ñu ñëw ci combat bi dañuy tiit ñeewantal ko duñ mën a supporter dee leen yëngal yëngal boobu day baax promoteur yaa ngi toog di xool ku andilee ñu ne moo daan tax ku andilee Diop de ku andilee Bébé Diène ku andilee jeex jàmm sa combat day taxawaat nga daan nga daanu fi nga nekk nii dañuy waxaale waat sa combat supporter yi dee leen jàppalee mbër yi te mbëri yi yéen ñi nekk ci yoon ngeen wàññi bàyyi noos bi victoire da leen di yomb ngeen tegle ay victoire ak yaakaar na yegg ngeen yeggagu leen de làmb dafa lëndëm daa wuyoo turam saison bii day baax deux ans yi mën naa baax ci yow ba nga nekk maire espoire yeneen deux ans yi ñëw mu bon ci yow ba nekk kii lu ko dal bàyyi leen ci xel mbër day am encadrement mbër day teel a tëdd mbër du wor mbër du trian mbër du nekk nit koo xamante bi ni gain nit ku lëndëm la tey di wax loo xamante bi ni gëmoo ko gëm leen seen bopp ngeen entraîné te moytu mooy mooy baaxut te du ñëpp la jig wàññi leen noos gi am na mbër yoo xam noos jigu leen am na benn mbër bu nekk ca Maroc chaque jour bu ma nee boo bàyyee noos mën nañ laa dégg ci làmb te leer na ma moom xam na man xam naa noos gi nag dafa bëri ay façon parce que tamit moytu leen bu baax bu demee ba mënatu leen ko muñ takk leen jabar may jaar ci digg bi tey moment bi nga xamante bi ni da ngay nekk ci série de victoire tey jigéen ñi macha allah lépp da lay yóbbu buntu yëpp day ubbeeku nga gis benn yaay faal bu ñëw investir ci yow lu bëree bëri mën na laa bëgg nag te yàlla tax parce que mbëggeel kenn xamul fu muy jóge comprendre nga bu la bëggee mën na la jàppale mais bu la bëggul mën na la yàq surtout ku ko xamagul moytu leen ko bu baax a baax ngeen gën a góorlu bu baax te xam ne seen réussite ñun mooy suñu réussite parce que ñun ak yéen ñoo bokk teere bi te ñu bokk teen ñooy laxasooy goj maa ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax ne leen nag incha allahu rabbi 2 octobre ba 27 août 2023 2 octobre 2022 27 août 2023 ñu ngi ci làmb ji kon meilleur espoir yi war nañ koo mën a joxe comme suñu frères yi suñu suñu làmb niñ koy bindee ñu ngi leen di nuy bakkan démbale yee ñëpp incha allah rabbi dinañ ci ñëw parce que espoir yi xalaat naa ci ci commentaire yi nag bindal leen ma du ma ci farfarloo de parce que bu ma doon parparloo sama turandoo laay dugal ndax combat saison bi bëri na ci 4 combats mais nag 4 combats yi ni mu ko bëree baaxul da ci am 2 victoires am ci 2 défaites mais am na 6 combats 4 victoires 2 du ci bokk parce que deful performance amul làq-làqal amul kuñ ko jox ku nekk war nañ la ko jox meilleur espoir yi xalaat nañ ci Tony Junior bindal leen ma ci commentaire yi parce que tamit ñun mën nañoo wax mais suñ xel day fàttu xalaat nañ ci Tony Junior xalaat nañ ci Bébé Diène xalaat nañ ci xale bi nga xamante bi nii mooy Doudou Sané xalaat nañ ci jóob numéro 2 ren def na 4 combats def na 4 victoire xalaat nañ ci kanaat bari na bari na bari na boo dee lim da ngay juum boo dee lim da ngay juum mën nañoo taxaw foofu daal pour l'instant mais xalaat nañ ci ñu bëree bari ñoo xamante bi ni incha allah buñ ko tegee ci table ji bind ko xalaat nañ ci Talfa aussi macha allah ren mu def ñaari sorti ñaari victoire mais darnielle sorteem bi moo frappé sénégalais yi mbooloo ba mu andi adversaire bu dëgër bu os ba mu am muy mbaytin bëre ba mu bëre moom daan ko def ñaari journée ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari combat saison bi ñaari victoire xalaat nañ ci ñu bëri bindal leen ñu ko ci commentaire rek ku ci war a bokk ku nekk dinañ def poule A poule B dinañ génne fii 5 génne fii 5 ci meilleur espoir yi mbokk yi lii la woon di leen jox di daja ba beneen ci Gaston Production xale jërëjëf.